maman euh, kenn du la kenn du la présenté mën naa ne ci àdduna bi sax waaw maman naka tey noo dundee li nga xam moo di ñaari rakka ndar yi yi daan dund ak bii tey lan la woon. waaw ñaari rakka ndar yi macha allah julli ko nañ ko daan jullee njabootu Cheikh Moutala gi ñëw teewe ko ak jullit yëpp ak njabootu Xaadim Rasul yëpp ak ndar yëpp ak waa senegal yëpp ah, ñaar rakk ndar yi mooy ndamal Sénégal mooy ndamal adduna bi yëpp mooy ndamal lislaam sëñ Bamba moo julli ci moo julli ndar muy ndamal lislaam moo te ñun ñëpp ñu jóg julli si fekk si Amadou Fifty Diop. mu mel ne démb gis nañ euh, nga nga euh, weccantoo ko moom loo xam ne adduna yëpp adduna yëpp ñu koy waxtaane kon daal maman ba léegi euh, ñu ngi koy bàyyi xel dina ñaanal. Euh, nga gën euh, gudd fan gën a yàgg gën wér ana kaddu yi nga xam ne moom ngay lancé pour xale yi nga xam ñu ngi ci aar bi. waaw tabarkalla ñëpp góorgóorlu rek teg ko ci yoon di def lu baax di ko wax ba noppi di sóoraale réew mi tabarkalla macha allah xale yi ñu ngi ko teg ci yoon macha allah ñu nag sëñ Tuubaa am tey lislaam moo am ndam tey sëñ moo am ndam waaye Amadou Fifi Diop tey fii ci Ndar ndax tubaarkàlla Sénégal kenn desul te def ko ngir dara lu mu jëmi sëñ Tuubaa rek ak